man sénégalais di ma dégg. mais bàyyi su ma paree rek kilifa sànq li nga wax. Ah, mais wérante baaxul d'accord damay jàppale rek ci wax bi quoi parce que des fois aussi waxu opposant lay doon du waxu analyste parce que sénégalais aussi dañuy bëgg dëgg. nekkul opposition léegi nekkul opposition rek. non non non ñi dem leen opposé ñi dem leen gouverner si opposition rek mu tuddaat turam bopp attitude opposant la am ba tey. yow yow c'est-à-dire fi kilifa ngay waxal demaat nga ba ci Ousmane. non xam nga tax ma na non yow moom xam nga ne yow sax xam nga ne yow parfois da ngay provoqué Ousmane. non du provoqué yow fi nekkoon baax na maanaam li nga doon wax mooy euh, ñu am député yoo xam ne li ñuy jiital du nekk partisanerie wala fii laa bokk waaye xool intérêt réew mi tax na mën nga nekk ci nguur sax mhm. nguur gi indi loo xam ne jàpp nga ni mhm. jëmul ci askan wi mhm. nga taxaw temb ne du fi amee wala nga bokk sax ci opposition nguur gi indi loo xam ne njëriñal askan wi la nga ne man mii toogawuma fi ci bët boobu ginnaaw njëriñal askan wi la naa ci toog fi nga nekkoon baax na dellul ma ñëw baaxul de fu mu nekkoon baaxul sant yàlla <laughs> mais Pape Moussa bëggoon xam te gis naa ko ci ñaari une yu bokkul yu ci ñëw hmm? mooy ci kaawu mi Diaz hmm. di euh, agité waat euh, condamnation bu tegu ci kaw boo xam te mën na ko yóbbu mu perte mandat mandat gis naa waaw lii quotidien d'abord euh, yoor yoor moo njëkk a ñëw ci ne lan la ñuy hmm. xaar ci Barthélemy Diaz après yàggul lii quotidien ne non fi nga koy yaakaaree du foofu maanaam diggante crime ak délit ci condamnation boobu noonu. Hmm. oui lu bëggoon ban ban ban ban ban kii la ñuy wax quoi ban. Euh, ci kaawu Ndiaga Diouf le dossier Ndiaga Diouf. waaw non ban mandat parce que man Barth il a deux mandats même de député de maire. non de député c'est clair sur autorisation sur demande du ministre de la justice. oui. il perd son mandat de euh, député. parce que foofu le réglement intérieur comme la constitution dafa ne bu buñ ko condamné pour infraction mmh. définitivement l'affaire Ndiaga c'est infraction et la condamnation elle est définitive peut-être moment bi condamnation bi di définitive euh, le ministre de la justice était aussi son avocat peut-être non actuellement waaw mun na ko demander. non dama amul daf war a demander. na ko demander war moom euh, c'est une autre paire de manches. moi je dis que non non man droit laa wax de doucement. Hmm. ce qui est légal mooy ne sur demande du ministre de la justice lay perte son mandat de député alors. actuellement le ministre de la su ko defee mu perte son mandat parce que la loi e est. Est-ce que c'est une obligation pour mu def. pas du tout pas du tout ce n'est pas une obligation. moo tax. lan la wax ci loolu la la wax ci la ni ministre bi. non ce n'est pas ce n'est pas suite obligation du du du du par force. alors par rapport ak le mandat de maire aussi. non loolu tamit le code général des collectivités territoriales si ma mémoire est bonne article 235 est clair si le maire ou un conseil municipal est condamné pour crime foofu soxlawul benn autorisation. Euh, l'alinéa continue en disant que sa révocation est de droit mu dem tëb nag duggaat ci beneen alinéa cité ay infraction euh, foofu la confusion bi nekk ah, parce que Khalifa Sall n'était pas condamné pour crime c'était un délit et il la perdu son mandat de maire parce que délit bi ñu ko daanee dafa bokk ci ñu cité après les euh, les crimes 236 ñu cité ay infractions notamment liées euh, aux les infractions liées aux deniers publics. léegi laal bi ñu daaneel Barthélémy Dias. Hmm? délit bi ñu daaneel hmm, hmm, fait pas partie bokku ci. ok donc ma bëgg mu leeral ko donc donc donc Barthélémy Dias délit la Khalifa Sall délit la mais Khalifa Sall délit wam dafa bokk ci code général des impôts. Euh, des collectivités boobu wax. Barthélémy Dias bosam bokk ci. Barthélémy Dias c'est-à-dire foofu la incompréhension bi di ñëwee il y a eu mort mais il n'y pas de crime. mort d'homme ak crime crime xam nga xam nga gars yi dañoo foog ne eh, day dem ba crime ñu foog ne crime moo nit mën na bañ a dee crime am nit mën na dee te crime du am vol de bétail par exemple vol nit mën na bañ a mën na bañ a dee te crime la nit dee te crime du am

Aliou Sow moi je suis pour qu'on criminalise l'homosexualité et tous les Sénégalais wala la majorité des Sénégalais bokk toi tu n'es pas pour ah tu es trop hors de l'Assemblée nationale hors de l'Assemblée nationale oui sur décision euh, du ministre boobu moom leer na ci côté boobu noonu il peut perdre son mandat de de de de de, de comment ça s'appelle député bon maintenant nu muy demee muy demee kan mooy suppléant waaw est-ce que ce n'est pas le maire de Yoff. blanc bonnet bonnet blanc. Seydina Issa ah, boobu. oh il m'a déçu. je je pense que. non parce que parce que. Seydina parce taxawu ak ki ñoo àndatul rek moo tax neexu ah, ah, man ma dëkk Yoff APEXI depuis. Issa sama booy la. sama booy la. ma bokk ci ñi ko encouragé bokk ci ñi ko ne. état pos c'est possible mais dama ne la yoof Diouf Sarr mu mu mu mu fa jóge mm-hmm. mañ a ŋàññi ŋàññi as néew gam daan def booy mënu sax booy bi non mais attends man damay fàtte ni am nañu maire ñun à yoof mais nan nga ni choisir seen je t'assure mais yéen yaa ah, loolu mooy da ngay topp benn par benn dem xool ci muy def nga a apprécier. waaw mais jug nii rek ne parce que parce que booy bi parce que ah, euh, waaye taxawu ak Pastef bu ñu tasee Aliou man loolu. sérieusement euh, sérieusement c'est pas ça qui me nourrit. rectification c'est pas ça qui m'a fait. non non moi je me suis ah, Aliou loolu nga xam ne. newuma ci partisanerie. moi je suis xam nga man je suis non man je suis quelqu'un qui assume assumer mënut a weesu assumer mënut a weesu jamono ji nga xamante ni Ousmane Sonko kenn ñemewu ko jege dama dem ne ko ñàpp jege lu ma ci goobe gàr ko moi j'assume personnellement ku ko jege Macky Sall lakk sa lu bon mais man man man. ma ne ku ko jege fësal ko Macky lakk sa lu bon mais man fësal naa ko ba sonn Macky Sall ko fësalee mais ndeysaan c'est dommage. noo ko fa Sonko existé wul après 2021 ah, de. Euh, Ousmane Sonko avant bi muy tax laay wax. please please lan ngay rectifier. Euh, le code général des collectivités au lieu de 235 c'est 135. Hmm, euh, mi ngi nii lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime sa révocation est de droit. Barthélémy Diaz dans l'affaire Ndiaga Diouf l'affaire n'est pas d'ailleurs c'était la la la chambre correctionnelle alors l'article cinquante et un euh, de du règlement intérieur de l'Assemblée euh, qui a repris l'article 61 euh, de la Constitution nee na le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice alors la condamnation pénale ah fan la demande sur demande. Ah, mais c'est-à-dire la radiation n'est pas automatique. oui non elle est pas xam nga demandeel par force. déedéet elle n'est de fait la xam nga fii daf ne sa révocation est de droit. dégg 135 bi la sa révocation est de droit. waaw loolu mais fii sa révocation n'est pas de droit. sa révocation est sous euh, demande. du du ministre léegi ministre bi demande bi moo dul obligation ci moom.

qui n'empêche est-ce que xam nga une condamnation comme li ñu doon wax ci Ousmane Sonko euh, que si la condamnation est définitive du mën a doonati candidat ma ne attention condamnation bi du moom mooy empêcher candidature mais la conséquence de la condamnation c'est-à-dire radiation des listes donc kon condamnation bi kese du dara la condamnation pénale définitive cette condamnation pouvait même être criminelle parce que condamnation pénale définitive 61 ci euh, constitution 51 ci règlement intérieur alors léegi il est de la liste de droit bokkul ak il est radié sous demande. sous léegi nag demande boobu noonu ministre de la justice bi bu ko deful il reste député. malgré cette condamnation malgré cette condamnation. foofu la foofu la doon candidat. lu tax ah. ah lu tax Ousmane Sonko doonul candidat. parce que parce que bi moom moo indi radiation bi condamnation bi c'était six mois Barth c'est combien. six mois il doit être radié bon et sur cette base sur cette base imaginez léegi Barth radié nañ ko des listes il est déjà maire il est déjà maire non non c'est c'est une autre paire de manches la bëgg a wax ne il devient inéligible après cette condamnation là parce que euh, code électoral L29 L30 boobu sénégalais yi miin nañ ko léegi <laughs> sénégalais yi miin nañ ko ba léegi léegi loolu noonu tey jii nii ça fait de Barth quelqu'un qui ne peut plus être éligible moo tax ñu doon wax il faut euh, xam nga délai de rigueur bi six mois il lan bi la délai de lan non ban rigueur ban rigueur non da nga ñeme ñàkk vas-y lire l'article non que yow euh, waxatuma fii maa ngi ci code électoral pour que bu ñu ko condamné si Ousmane Sonko lañ ko condamné ne ah, bokkul élection laa lay wax ni ma ah. mais mais mais euh, nga baal ma nga baal ma rek ma ma def tuuti hors sujet dañuy incha allahu rabbi samedi après demain ñun waa sans limite dañuy ngénte Pikine te ñu ngi invité ñëpp ñu ñëw ñun waa sans limite dañuy ngénte invité lañ la nga ñëw pointé la non xam nga fii daal loolu lañ la mën a wax Aliou xam nga fii nous sommes une famille xam nga fii xam nga fii xam nga fii xam nga fii nu sommes une famille xam nga nous sommes une famille comme